ci diggante mag naan di Fall la jóge bëri fa bëri bu rëy daan fa jël bu rëy dafa exploit bu doy waar est-ce seetaan nga combat am boobu. waaw man si victoire la jóge man si victoire laa jóge parce que daan naa naan di Fall man ma daan laay Pythagore comprendre nga ma daan Tidiane Faye ñi ma daan ñëpp avec ay manière laa leen daanee kon moom technicien la man technicien la te boobaa làmb ji def naa ñaari technicien su fekkee ñoo ko sekk boobaa dina neex dina xumb. lan moo tax nga nga nga nga bërik laay Pythagore am ca ndam ba pare wàcc jël daam seen waaw xam nga ñun ñoo war a mun a mayante sens daam seen pour dafa prouver ma xam ne war naa mun a bëreek moom mbër la ko meen mbëri su ma toogee fii di xaar di xaar Samba wala Demba pour ma bëre du yomb loo tax ma jël ko pour wane sama bopp su fekkoon cuuna la wala yaa fusa du ma ko jël mais li mu nekk jàmbaar moo tax ma won ko ma jël ko pour wan na ko seen ak jàmbaar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 daam seen muy waaw loolu dëgg jaama ko pexe yàllaa ko dogalam mais daam seen dama koy daan naka moom sax di taxaw ak moom di lambisoo di jëmale fu kenn xamul di tardé amateur yi non non si c'est le travail qui paye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 Dame Sène ku mu mus a xeexal Dame Sène musu xeex kenn ka la mus a xeexal ay coroxo coroxo la lay def eh, ay faxastalu daan la dem yoonam la ah waaye fii mbër bu mënul koor amul yow mii sax tey su la am rende super toño nga koor ko mbër bu mënul koor amul loolu du dara ñun yooyu noonu xëppal suñu moyen yan wax lay moom ay wax yoo xamante ni kenn laaju ko ko sax lay wax te yooyu jarul wax dama bëgg a bàyyi ba daan ko pare woowaat leen expliquer leen ni mu doon wax mais instant bi du pour moment quoi instant bi waaw waaw daam seen du moomay jëngal trois xaw ma un zéro xaw ma trois zéro la mais du daam seen mii mooy daaji paquet bii paquet bii du paquet bu ñuy ñëw di daaji paquet bii day saf sàpp day saf sàpp day neex day saf sàpp man du ma bi ñuy daaj de instant bi waaw non instant bi dama leen daa ma fu ma teg sama bët te incha naa daam seen naa daan daam seen dem ci kaw non làmb yëpp dër bi la lamb bu dul dër amul gars yi ñooy taafantaloo ay Pikine Parcelles dër bi la làmb yëpp dër bi la exemple dama bëgg a euh, daan daam seen am na koo xam ne moom laa soxla mu ngi si biir ikiri ba jël ko non mu ngi si biir non Papa Sow moom góomuñu gaaw a bëriwaat parce que mu ngi jël âge dama bëgg daan jël franc damay daan daam seen jël franc waaw loolu laa bëgg. bi ba léegi day continuer.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 non xëy na yaa ma xamul parce que c'est la première fois sax man maa doo gis mais ñii xam nañ ma man lu ma wax dama koy def man lu ma wax dama koy def lu ma ko lu ma wax incha allah su fekkee yàlla lu may nangu ko su bu jour waa dama ko dama koy def man damay ñëw wane fulla ak fayda même suñu may daan damay wane jom ah kan kii mun na téye boppam sama kaw moom mun na téye boppam sama kaw. non dana mu ñëw arbitre sifflé moom mu téye boppam ndax yow di nga dem. waa léegi kii mun na téye boppam sama kaw kii mën naa koy diriger. du fu mu téye boppam. yaay diriger combat. maay dem maay ñëw maay man la ñuy sama loxo. déggoon ma wax kii du xeex du bëre du niil du daan du niil du daan moom ñëw rek xam présenté wu noonu rek dem wu xool fu nooy tëdd fa. li wax nii yomb na de daam champion la de. daam.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 moom xam na ah Papa Sow daanu ma de par décision arbitre la. ah, ah victoire victoire la mais yooyu du victoire dara dama koy ñaanal su amee benn combat yàlla may ko ah, ndam rek. waaw mais ay France euh, ah, yi nii na mbër taxaw na ko daanal kii mën na ko grand barki seede naa ma kii du niil du daan dama koy daan dem dama dama koy daan romb la ma waa euh, des arènes ni na mbër. boo ma jee indi na mbër man ay mbër bu mag moo la yor yooyu noonu man concerné wu man li ma indi ak li ma entraîné ak li ñu ma waajal loolu laa yóbbu mais ay kii mbër bii moo ko indi mbër bi moo ko indi loolu amul si làmb yooyu yëpp ay stratégie la. léegi daal ñu nangu ne tonnerre moom moo wax lii ay micro ngay waxee bu arbitre sifflé yaay dox ci kawam bu arbitre sifflé yaay xeex ak moom. bu arbitre sifflé yaay bëri moom yaay dériser ci combat bi loolu nga wax. teg si yaay daan teg si yaay daan. lool nag man du ma ko wax waxal ak daam. man yow la yaay eggali eggali ko. ah eggali ko yow. déedéet yow waxal ak daam eggali ko Baye Balla. Baye naa la wax moo tax loolu teg ci teg nee na moom mooy daan. waaw incha non fu mu toll nii gars yi fu ma dama ne ay xale rek lay entraîner géej nii ay xale rek lay entraîner man dama yàgg a bëre dama yàgg a bëre xam na ci làmb ak li làmb di laaj ma di ko jox ay loolu noonu ça ne me dérange ay kii xale la wala kii mag la non bis bu nekk la muy laaj bisu daam seen li mu laaj incha allah bu bis ba naa ñëw rek wane ko mais du ma ne daam seen xale la damay taxaw moom moo soxla wala moom moo kii ni mu soxlaa victoire man nu ko raw laa soxlaa victoire.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 ay ñoom ñëpp Pikine mbooloo lañ nekk ah, ah, non parce Cobra waroon na ñëw mais dafa xaw feebar waaw yaram mooy xaw metti noonu rek mais Cobra sama raxala man maa ko indi si igri bi Cobra fii këram la fii la amee lépp man loolu laay wax man sama teraanga yëpp fii laa ko amee kon fii nii du suñu igiri suñu kër la xaar ñu fi sàmm xaar ñu fi dem ba ku ñëw dañ fiy fekk kuy dem dañu fi bàyyi Cobra suñu rakk la su wéree dina ñëw nekk si lim nekkoon di ko ñaan yàlla mu wér yàlla may ko ndam ni ci kanamam comprendre nga loolu lañ koy ñaanal di ñaanal képp ku nekk igiri Pikine mbooloo wala képp ku nekk igiri Pikine sooy bëri yàlla may la ndam mais fii ñëpp benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi boo teg sa tànk doo ko am lënd nag gars yi dañuy dem géej géej sax laa bëggoon ñu dem mais géej booy ñoo dul may nga def li nga bugg a def loolu moo tax waaw. waaw le bi maa ngi woo waa Yëmbal di si jiital euh, monsieur le maire Ndaw Sané Ndaram faxa Amadou Xot maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy ah, waaw as ndaw euh, maa ngi koy bégee di ko ziare.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 waaw supporters yi maa ngi leen ñaan euh, euh, ñu mobiliser wu teel a dem stade rek añ añi moom incha allah dina teel a pare. non à la violence. la violence di wax Fallou Ndiaye moom kenn amul sa fay yàlla mi am sa fay yàlla na yàlla fay parce que Fallou Ndiaye mooy seul promoteur boo xamante ni da lay tëggal làmb di la sonal di la déranger di la woo woowee dinaan la nii ngay taxawee ni ngay defee non non non Fallou Ndiaye naa ba mu tëggalee combat ba léegi ñaari yoon lañ déggante démb ak jour bu jour bu koy bu jox avance boobu lañ déggante. di ko ñaanal yàlla yàlla na dem bay tëgg ay ñoom ay combat yu mag a mag a mag a mag si barki Seydina Mohamed waaw mm-hmm. euh, jërëjëf ah mbokk yi kon euh, bés baa ngi noonu bésu vingt 24 juillet maa leen ko diggoon Fallou Ndiaye moo leen ko diggoon le promoteur numéro un comme ni ko Tonnerre waxee moom daanaan la ci wàll wu muy liggéey te jeune la xale la doomu réew mi la kon ñu ngi ñaan amateur yi ak supporters yi ñun ñëpp